loolu ak li xew euh, ci transport bi mais li mujj mooy cette rencontre entre le président Diomaye ak son homologue français foofu aussi euh, lu bëri wax nañ ko ci rawatina si discours Ousmane Sonko récemment va falloir revoir euh, nos relations la France n'a pas bien agi n'a pas été correcte avec le peuple sénégalais le président moom dem daan ko waxtaan ak ñoom trouver benn communiqué conjoint qui montre que am na ci lu ñu déggoo. donc foofu aussi mën nañ jàpp ne euh, li ñu doon wax ak lii ba tey ba tey ba tey wute na. xam nga nañu am xam nga dafa am waxu waxu opposition dafa am rek c'est-à-dire que en réalité. mais les Sénégalais dans tout ça. waaw mais bon c'est-à-dire que xam nga nag. yaa maanaam Sénégalais dañu leen a gëmoon que ne li ngeen wax mën nañ ko def. c'est ça le foofu le problème bi nekk. waaw mais c'est-à-dire xam nga c'est c'est c'est une c'est c'est c'est moo demee noonu parce que c'est un discours politique qui est là. Mm-hmm. <coughs> ngay wax. Sénégalais yi di jël di encaisser des trucs comme ça mais il faut euh, éviter aussi le retour de bâton mais boo ñëwee ci état am situation c'est retour de bâton qui énerve Sonko voilà boo ñëwee mu nekk dans la menace boo ñëwee ci état nekk si situation da ngay wax ak da ngay jàkk am sañ-sañu jàkkaarloog réew mi ne leen lii moo mën a ne te sénégale yi yaakaar naa ku taxaw ak ñoom ne leen lii moo mën a ne non dañuy nangu ne lii moo mën a ne mais di leen wax mën naa mën naa def lii du ma defee lii dinaa jaar fii non c'est-à-dire que da ngay créer ay problèmes ya nga xamuloo fu mu jëm